barakaatu maa ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi fi teew tey di am contentement bu rëy nag ci wax euh, joxe quelques kàddu rek ci bis bi xëy na sax matewuñ ko ndax ñoo ci gën a nekk ndaw waaye dañ ciy barkeelu rek ndax mënta ñàkk maa ngi nuyu nag euh, sëñ Muntaxa Bachir xalif général kullu murit di ko ñaanal mu yàgg fi lool ànd ak wér fan wu gudd ak wér bu yaram ba mottali yéeneem incha allah su ma jógee ci sëñ Muntaxa nuyu sëñ Ibra Xuja xalifa général kullu dénday xalifa sëñ Moodu Xabaan xalifa sëñ Mandumbe maa ngi koy ñaanal moom it mu yàgg fi lool ànd ak wér ba mottali yéeneem di nuyu tamit euh, sama baay bu baax bi di sëñ Sam di ko ñaanal yàlla mu bàyyi ko fi ba yeneen ji mu am ci njabootam gi ak yoonu sëñ Touba bi yàlla na ko mottali ak sagoom ci barke Cheikhul Khadim di am mbégte nag bu baax mbégte moo xam ni am na tàmbali waaye amul fu mu yem ndax bis bi dafa màgg si ñun màgg ci bépp taalibe mënumaa ne rek waa Dindey ko moom mais képp ku taq ci sëñ Manoumbe Xabane rek bis bi am nga ci wàll moo tax nag diis na ci ñun ñu wax ci fi mu soqee ko ndax xëy na moo jiitu suñu waaye mën nañoo ne dañ ko fee fekk fekk ci suñuy maam suñuy baay ba tey jii ñun ñu nekk fi moo tax mën naa ne suñu góorgóorloo rek incha allah lu baax dinañ ko am ziar annuel de Dendey bi nag macha allah neex na trop mais ren da cee raw ndax euh, dafa tombeek ubbite jumaa ji nga xam ne suñu bopp ji moo ko fi sos macha allah bañ na bis bu tedd sax la tombeel muy aljuma moo tax kontaan nañ si bu baax gis nañ mbokk taalibe niñ ci teewee niñ defee seen taxawaay ñëpp kenn desul macha allah léegi doy na. naan yi doy na mbégte mi bari na di sëñ Muntaxa waxoon rek nag mbégte mi moom baal jana la incha allah di ñaan yàlla nag yàlla nañ ko yàgg a fekkee yàlla yàgg koo teewee yéene ku ci nekk yéene ji nga yàlla na la ko Cheikhul Khadim fay yàlla na la ko sëñ Manumbe fay yàlla na la ko sëñ Modou Xabaan fay ak suñu borom jaag sëñ Saam ak mbooleem ku ci rax ndax mënuñoo lim buñ limee rek dañuy juum moo tax dañ ci doon sànni quelques kàddu yooyu rek di wax ni nag kontaan nañ lool macha allah ubbite jumaa ji nag yàlla nañ toog ba suñuy sëti sëtaat di ci julli tey lu ci waay ñaan rekk li saxool yaa ko xam yàlla na ko suñ ma numbe nangoo ndax euh, dëkk bu sell la macha allah dëkk boo xam ni manqué wul dara bañ na borom dafa ne woon sëñ Tuubaa bu ma fay dara fii fay ma lépp yow mal xiyaam ndax boo ma fayee rek samay taalibe dinañ bew moo tax euh, sant nañ bu baax sant leen yéen ñu fi teew duñ ci laaj macha allah lépp rafet na. bi moom bis bu màgg la ci ñun bis bu rëy tamit ndax amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko sut kon nag bis bu neex tamit ci suñu xol la te chaque année tamit mu gën di neex suñu xol yan yàq koo fekk tamit ay at yu baree bari ba suñu sët di ko fekkee bis bi nag moom mënuñ cee wax lu bari ndax moo ñu mag. daa dañu juddu fekk ñu koy def ñun tim ñu ñëw di ko def te yàlla nañ dem ba suñu sët di ko def waaye mbégte lañ ci àndal ak kontante te yàlla ne gën a neex nag ci bàkki Cheikhul Khadim wax ji nag moom du bari waa taalibe yi tamit ñu ngi sant bu baax di leen gërëm ndax taxawaay bi rafet na ànd naag ndigal ànd nag lépp luñ li nga xamante moom la mébét ci bis bi lépp yàlla def na mu jàpp sotti ba niñ ko bëggee woon xanaa sax moor euh, am na te ni tey ni foogeewul foogeewuñ ko woon sax foofu noonu fi ñu ko bëggee woon waaye yàlla na yàlla gën a yokk taxawaay bi taalibe yi ànd ak wér ba at mu ñëw liñ ci yéene seen xol yàlla motu leen tam yomb lool ci ñoom te ànd see ngër mu Seexul Xaddim sant bu baax sëñ Ibra ak sëñ Sam Mbacke ñaan yàlla may leen fanu gudd ak wér gu yaram may leen bañ mën a taxaw njaboot gi bu baax a baax ak taalibe yi sant sëñ Sam tamit bu baax a baax ndax daa am fum mu toll ci man di ñaan yàlla yan bi oyof lool ci kawam. neex na lépp jaar na yoon dara manqué wul taalibe yi lépp lu ñu warloo woon ak sëriñ bi rek taxaw nañ ci seen këm kàttan wax dëgg yàlla macha allah dañ leen di ñaanal yàlla fanu gudd ak wér-gu-yaram bu ñu mën a continuer liggéeyu sëriñ Touba bi suñu borom defal leen ci ngërëm lu kawe seen jotu ci barkab Seex Madu Mbe Xabaan xanaa kontaan rek taalibe nekk jàmbaar loolu wax dëgg yàlla itam chaque jour rek bu sëñ bi wootee ñu wuy si seen doole ak seen poos dara du ko fekk macha allah jàmbaar lañ lool xanaa di leen bàyyeeg yàlla ak sëriñ bi ak Cheikh Mandumbe mu fay leen. xanaa ñu yokkee góor góorgóorlu te xam ne Sëriñ Tuubaa moom lu ko waay defali sa bopp nga ko defal lu ci waay jëf daal sa bopp nga ko jëfal